Mouhamadou Lamine Thiam euh, association des imams et oulémas de Saint-Louis ñu ñëwoon fii doon euh, wàcc ñaanal euh, suñu mbokk nga xam ne génn àdduna boobu ak tey def na ñeent fukki guddi di am di Mouhamad si moo ñu fi taxoon a teew di ko defal ñaan ñaan yàlla suñu borom yàlla yàlla nangu ñaan gi. di wax nag ne moom Mouhamed Hafiz suñu laajee ci moom danañu lott ngir tontu ci liñ ci mën a wax rek la yaa Aïcha waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kan mooy Seydina Mouhamed mu ne Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran jikkoom. kaana xuluqul Qur'an kon ñu jàpp ne moom tam ci loolu la tegoon tànkam euh, ndar gi mu dëkk ñu seet lu ne ku ku mënoon a rabatle ay mbokk la waaye ku mënoon a dékku itamit jafe-jafe àdduna àndoose ko ngir yeneen doomi aadama yi mu mën a oyof ci seen kaw nekkoon koo xam ne tam ku fàggandikoon alxuraan la tegoon tànkam ci sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, waaw dañuy gis ne rek li alxuraan di wa atasimu bi hablillahi jamian maanaam euh, ñu ñu ñu booloo. Euh, comme xel mi dem na ba jot ne diine gi jot na ñu boole rabatle suñu ay force di ko dajale te bu fekkee dañoo tasaaroo du mën a nekk foog ñuy am jataay yu mel ni euh, cofeel gi almahabba di gën di nekk ci ñun ku nekk di gis sa moroom di ko sopp ku nekk di gis sa morom di am yëg-yëg ci moom loolu la day yokk loolu comme su ko waxee rek mbégte li ci ñëpp te ñu ñu nangul ko ko itamit euh, nga dégg président Mouhamed Sakho di président association des des imams oulémas de Saint-Louis na ko ko chaque le 19 danañu àndandoo wala danañ ñu àndandoo ñëw teew ko fi bokkandoo ko ak ak moom. ñu gis ni jamono yi ñeneen ñi di jóg pour dooleel lislaam ñeneen ñaa ngi jóg ci dug ci dugal loo xamante ni bokk ci daanaka bokku ci lu mel ni euh, sëñ bi ñuy dëgg taay Kolda mu andi alxuraanu boppam di wax kaaba boppam di wax julli julli ci làkkam en tant que borom diine nitu diine jógee ndar ndar nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci wàllu diine moo tax tey ñu jël la pour nga wax ñu yën ban jàngat ngeen def ci loolu ak ban lan ngeen fas ne loolu moo waroon nekk taxawaayu lislaam pour loolu bañ law réew waaw li ko tënk rek. mooy dañ ci àndandoo ñun ñëpp di ko naqarlu di ko mettitlu waaye am na ñoo xam ne seen kàddu gën naa kawe suñuy kàddu ñooñu itamit dañoo war a jóg ñu wax ñun boo ko defee ñu mën a toftalu ci kàddu yi ñooñu xam taxawaay bi waaye taxawaay bi benn la rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi lu mel nii xewee ca Makka ba mu ko xeexee ba génn Madina gannaaw nag li nga xamante ne mooy fatxu makka ba mu ñëwee dafa jàng ne dëgg ñewna lépp lu doon ay tiaxaan képp nee ko bokalé jànjax daanu na ci kaw suuf alquran tegu na ci kaw sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam na ci kawam kon kenen ku ñëw samp lu ni mel yaangi ci ay tiaxaan alhamdulilahi rabbil alamin ma ngi tuddi imam Cheikh omar Daat dëkk ñewdun ci UGB fa lillahi alhamdu wa shukr ma ngi bok ci association ay imma yi nga xamanteni ñëw nañu fi tey ji ci bëss bu mag bi xëy na lu nu waroon wax lu ci bari wax nañ ko. waye ci point bi nga xamanteni sama mbokk mi imam bi genn léegi fi mu doon appuyé fofu lay bëgg def tayit bi maanaam ma ma gën ko dëgëral moy nabi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngaloon benn xadis boo xamante ni su fekkente nit gi amna katan pour dindiku ci loxom li ja doon moy nga dindiku ci sa lox waye bo amulé katan lolo sa bo amulé katan lolo nang ka ci sa xol waye limu jundji fi ni nii rew mi kon kon amna ci amna ci pouvoir maanaam ñom ñoo amé doole ji nga xamanteni ñom ñoom ñoo war a bu ko defé ay imay top ci seen gannaaw ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa jàngani ci lu wér ci ay hadith yu wér yo xamanteni ne dootul ñëw ci gannaawam lool mom lu ñu jàng ci sahih muslim mom lu ñu jàng ci sahih bukhari benen moy suñu borom subhanahu wa taala moko ko ci alquranul karim ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatama khatama moy motali na kon yonent dootul am muy muy ñaar benen bi modi suñu ben nit yàlla du suñu mam di cheikh umarul fuuti ko de adama aysi dafa wax ci benn mbind mu yéeme mu ni ku ñu tër rendi ku ku nekk dana am ku la jooyal bu mu des diine lislaam man nag jàpp naa ni toll noonu foofu ci lay waxee ne li kulli qatilin naihatun yanunahu وليس على دين المهيمن نائه كون ترند كون نك دانام كو جويال بومو ديس نك دين يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم واي لي في ني فينيو ني تي جامون يونت صلى الله عليه وسلم امنا كونان مسيلمه الكذاب مو جينا سيو امنا كونان الاسود العنسي بوك ني ني سيو واي امنا كونان سيديا كوكو مغي دوكون يمن كوكو بوك ني جينا سيو تي يونت صلى الله عليه وسلم ني وون سما غناو دنا ام نيارو فك نيت اك غروم نيار يي ووتني اي يونت ني نينتين جيغن نيو نيك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد اديمان تشام بريزان كوميسيون كوميونيكاسيون la l'AIS association des imams oulémas de saint euh, li nga xam ni moom moon fi indi mooy daje rencontré euh, jaalewaat aussi sunu mag Mouhamed Hafiz si ibnu Ahmed Iyane Sy di ko jaal aussi sunu euh, mag sunu nijaay Ahmed Khalifa Niass li nga xam ni mbokk yi wax nañ ko concernant waa ji nekk fële ci Kolda bu malheureusement Sénégal fonkul histoire Sénégal fonkul xam-xam le Sénégal dafa am courte mémoire mais c'est pas la première fois yu melni ñu koy wati Sénégal mais bu ñu xoolee ñi ko fi woote ñëpp euh, benn amuñu xam-xam ñaaray bi aussi jiné ñoo leen di tromper jiné ñoo leen di tromper bon euh baña togn mais sinon mën fi tudd ay tur ba nga xamé jiné di tromper na leen nax na leen mais après sen après dafa jeex waa ji bu fekkoon Sébata Amady euh mi dund ba léegi wala ku melni mo moom am nañ Sénégal dañuy dem ñu jëli ko ñu fajj ko ñu ngi koy fajj mais aussi euh, Sénégal euh, fi mu toll nii réalité yu pour sécuriser le pays il faut ñu il faut ñu wut ministre bu yor affaire culte affaire religieux pour mën le recadrer ñu mel pour mieux sécuriser le, le pays parce que kenn mu nekk fii di fa wootee euh, juney trompé trahir nous euh, muy woote li nga xam ne ni kenn lu lu xam c'est comme aussi mënoon na fa aussi former benn armée kenn nous alors pour sécuriser la pays pour pour le pays pour adopter aussi ak suñu réalité bi ñun il faut l' état wut ministre bu yor affaire bu diine pour ñu mën ñu surveiller ñi nga xamee le les jinne les les satan ñoo leen di tromper ñoo leen di trahir alors mu fay réew mi am stabilité am dal parce que Sénégal bu ñu xoolee un peu partout gars yaa ngi woote ah de gauche à droite mais affaire bi ñaar rek la muy alxuraan ak sunna mooy diine l'islam lu dul loolu diine l'islam asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah man la yoro imam yoro Diop ah comme li mbokk yi wax léegi rek maanaam euh, l'islam moom nit yàgg nañ ko xeex waaye amul leen njëriñ ndax l'islam yàllaa nga samal joxoon ni ku ne jëm gëm mu xeex muy fii muy feneen waaye taxul lépp ñu am ci ndam kon ci tënk rek maanaam que ni jullit nañu fexe nekk benn rek gën a jàppawaat bañ a gees li nga xam mooy seen gannaaw joxantu loxo incha allah rabbi ndegam sa ku xeex l'islam doo yaa ci am gàcce melo ci am ndam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Je suis Cheikh Yahya Diallo commission scientifique de l'association des maîtres coraniques ak l'association euh, des imams et oulama suis euh, tamit déclarant responsable franco-arabe Yahya Diallo Nek président ACAR association pour la coordination entre aides des actions religieuses nous avons li nga xam actualité la mën nako wax nous wax ci ñaari ñun ndax min komi halpular yummay baaba so nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi la nabia badi minne caggalam annabi arata woodi nodduɗo o wi ko kanko woni annabi battidiɗo o fenni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo balɗe jawtuɗe tan macron o waɗiɗo jaltugol o wi yo nelaɗo waɗe caricature ko wiyete yo dessiné yimɓe fof gummi ɗum muusi min kanko ko wadi ko dum godi buri bonde kon suma dellu siwate mo pular mani mi dafa togn kep kuy doomu hal pular ndax limu def mo gëna graw li macron defon macron dafa genn ni nañu koku da fay jël natal li nga xamni xamuko gisuko kon mënon nañ ko sax baña manifester wu di nakarlu waye ki limu def mo gëna bon ndax dafa yalla ma yalla jéggel ci limay wax dafa fello yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi mi wax ni yonent dootul ñëw sama gannaaw yàlla wax ñu ko ci alquran moom mu di wote yonent ñoo ngi koy wax ko na ci dellu gannaaw ndax julit ñëpp bu ñu àndandoo booltoo di ko xeex suñu allahuma munu ko dékku du ñu jël yat du ñu jël fetel du ñu jël paaka waaye am nañu suñuy ñaan mën nañu wéet guddi ñun rek ak suñu borom ñu ñaan suñu borom biir mi yal naka suñu borom teg tegg ci kaw suuf kon képp kuy woote yonent boo ci daytalewul liy dal sa kaw doo ko xam te léegi mu fay ñuy wax nag état bi na ci jël responsabilité bi feeñ na léegi ci jotaay bi ci suñu ziyaara bi feeñ na ni capital bi mu ngi tàmbalee nekk ci ndar nit ku baax koo gis sëriñ sépp jaar nañu ndar ndar amoon na tribunal musulman te jamono jooju temps colon yi ñoo fi nekkoon mais kenn ñemewul def lu mel ni bu ngeen di fàttaliku ñaari korite wala ñaari tabaski daaw amul woon ci jamono jooju ci gannaaw colon yi la ñu jël ñun jullit ñi nag léegi ñu yoreel ko suñu bopp ñu jël mi def ko euh, mbir mi di manifester lu mel ni waaye lii nañ ci taxaw ci lu mu gën gaaw fi may sama en tant que déclarant responsable franco Arab Yahya Diallo maa ngi ñaawlu objet yi nga xam ne ñoo ngi ci profito ji ju sangara di jox suñu njaboot gi ndax kaay leen ñu def leen yéeféer jàpp sunuy njaboot def leen yéeféer ci bi ñu juddoo yàlla xaraamal sàngara ñu ni daañu def seen pexe pour seen njaboot bala ñuy màgg ñu naan sàngara parce que yonent bi nee na ku naan sàngara ci àddina doo ko naan ci àllaaxira te ndax xam nañu sàngara àllaaxira nu mu mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal nañu li nga xam ne bu ñu góor góorloo ñu dund dund gu teey dee dem aljanna waaye bu ñu sàgganee ñu mel nii daanu ñëw xajamal réew mi jëfandikoo seen alal jëfandikoo seen i pexe seytaane ànd ak ñoom ba ñun ci suñu wàll bopp ñu ñàkk suñu valeur ci diine lii daal laa amoon kàddu yu ma ci sànni te wax ni état bi na taxaw ci responsabilité yi nga mu ngi ci kawam su dee responsabilité partagée 99 pour cent yëpp ci kaw état la mo ñu waral defar ministère bi nga xam ne taxaw di saytu mbiru diine mo wara a delloo si waat jox nu ko ni nga xamee ne xaade ñoo ngi fi ñoom aman Ndiaye Mabey ñoom Abdou Masib Diop ñoom euh, am na ñu bari ñi nga xam ñoo ngi fi ñu jox leen responsabilité xaadi waaye suñu àttee dafa am beneen instance bu ci seen kaw kon loolu nañu may l'islam ñu am autonomie bi nga xam ne képp ku def lu mel nii dello ko daañ ko mën laaj ko ko gannaaw bu bañee l'islam dal ci kaw yal na yàlla defal nu jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah